parce que démb dañoo jël sonko. Mhm. am na fu ñu ko yóbbu te am na ñu ne dañ koo drogué boole ko xale bu jigéen ba. allahu akbar voilà doomaraam bi. waaw baax na léegi nanguwuñu avocat yi wax ak sonko avocat yi ba léegi gis ñu sonko xamuñu ci lan ci sonko nekk. sët tët tët da ngay lii rek baax na incha allah dinaa tas information bi nu ñuy jël seen matuwaay. d' accord incha allah jërëjëf jërëjëf soxna si.